بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdali al anbiyaai wal mursalin xabibina wa rasulina muhammad ibni abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yawmi ddin amma baad al ahibatu fillah ixwata al aizza assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi dellu siwaat nañ ak yéen ci jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen muy aalamul jën ñu ngi ubbee suñu wax ci sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yenentam bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko xéewal ak mucc ñaanal ko waa këram ak i sahabaam ñaanal ko képp ku jóg topp ko ca la mu nekkoon ba bés penc di taxaw ñu ngi wax amin ci ñaan yi mbokk yi di ñaan di wane ne yëg nañ ànd bi ñu ànd ak Daarul Birri TV yal na yàlla sàmm ànd gi eh, falan seytaane ba bu mu ci am benn cër eh, li ñuy wax yal na yàllay kese lu ci njub yal na yàlla defal ñu ko jub ak jubo tey tomb bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen dina tënku ci ñett bi ci njëkk mooy bëgg nañoo wax ci ndax jinne mën na sëy ak doomu aadama léeg nga dégg ñu ne diw dafa am jabaru jinné ndax loolu mën naa nekk bu mënee nekk ndax dagan na ci sharia ñaareel bi bëgg nañoo teqale diggante jinne ak seytaane ak ibliis ñetteel bi bëgg nañoo wax lan mooy njabar dëgg-dëgg njabar ndax njabar am na taasiir bu muy def ci doomu aadama ñetti point yooyu incha allah la bëgg ànd ak yéen muy suñu darsa tey bu ñu bokkee yàlla ñu yëg ne jinne mbindeef la kom ni doomu aadama nekkee mbindeef ni malaaka nekkee mbindeef waxoon naa leen ci darsa ne leen ñett yooyu daal moom yàlla wan nañu ci alquran ne ñii am nañ waaye yàlla bind na lu ko soob bind na ba bind lu ngeen xamut ndax dañuy wax ne baytul maamuur ñenn ñi dañu wax ne mooy kaaba gi ñenn ci borom xam-xam yi am ñu wax ne déedéet ma maamuur mi ngi tiim baytul izzati baytul izzati mi ngi tiim kaaba gi kaaba gi moo nekk makka fa la nit ñi di dem di def xaj baytul izzati moo nekk ci diggante asamaanu juróom-ñaar yi waaye baytul maamuur nag moo nekk diggante asamaanu juróom-ñaar jëm ci malawul ala boobu la yàlla wax ne bés bu ne juróom-ñaar fukki junni daañu fa dugg jaamu ci yàlla ci ay mbindeefam te buñ fa duggee doo dootuñu fa dellu si kon yàlla am nañu ko jaamu kon ñu njëkk a ñëw ci waxu Ibn Abbas dafa wax ne jinne yi ñoom seen baay mooy iblis moom loolu la wax mu ne dañuy dee ci jamono bi nga xamante ne iblis dafay dee duñu dee mukk lu muy bu iblis di dee lay ànd ak ñoom dee ak njabootam nga ne waaw iblis fan la amee njaboot moom kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi dafa am njaboot alquran tontu la ne la waaw dafa am njaboot ndax bu fekkee delluwaat nga ci alquran ba tey da ngay fekk yàlla di wax ne afa tattaxizuunahu wa zurriyatahu awliya min duuni wa hum lakum adu iblis ak njabootam afa tattaxizuunahu wa zurriyatahu ndax da ngeen koy jàpp ak njabootam awliya ñu méngoo seeni mbir min duunillah ngeen bàyyi fi yàlla aw min duni bàyyi ma fi man yàlla wa hum lakum adu te fekk moom kat noonu la ci yéen moom iblis nañu xam ne jinne baatu arab la seytaane baatu arab la wolof nag dinay wax yu bari dinay wax rab <laughs> dinay wax njuuma dinay wax waxtiif yooyu yëpp wolof dina koy wax waaye nañu xam ne baatu jinne baatu arab la naka noonu seytaane baatu arab la jinne mooy loo xam ne yaa ngi dégg baat bi te gisuloo jëmm ji bu kukkee ba dem ba ñuul kukk loolu it arab yi dañ koy wax jinne naka noonu seytaane mooy lépp loo xamante ne sori na dëgg rek loolu la ñuy tuddee seytaane bëggul dëgg loolu la ñuy tuddee seytaane jinne yi nag dafa am ñu baax dégg naa benn borom xam-xam mu ne jëflanteeg jinne wax a wax wax ba ne jinne baaxul man kañ am na jinne yu baax ndax alquran wax na la ko inna minnal muslimun wa minnal xaasituun am nañ ci ay jullit am na ci ñoo xamante ne nag seen xol yi dafa duñu ay jullit kunna taraiqa qidadan maanaam ay façon lañ yu wuute loolu war nga koo mën a gëm jibril alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mus na koo laaj ne ko waa Jibril xanaa li yàlla bind day yow yaa ci gën a rëy lan la ko Jibril tontu ne ko déedéet yaa Muhammad gënuma cee rëy de am na ci malaaka boo xam ne man Jibril su ma toogoon ci mbagg ndeyjooram duma ma egg ci boppam kon yàlla am na ay mbindeef yu baree bari am na ay mbindeef yu rëy lool sax naka noonu pour nga xam ne moom iblis ak doomam ñoom ñooy shayatin yi jinne yi seen baay du iblis barki démb rek télé bi ñu doon seetaan am na ko koy wax mu ne baayu jinne yi mooy iblis ko déedéet saw mooy baayu jinne yi ndax ya waxoon ci alquran ne yàlla ba mu ko digalee mu sujoot dafa bañ wa kaana minal jinni kon kenn la rek ci jinne yi waaye nekkul baayu jinne yi kon saw mi mooy baayu jinne yi mooy abul jinn yàlla mi ngi ko bindee min maarijin min naarin qaala tabaraka wa taala ginnaaw bi ko yàlla bindee lan la ko wax dafa ne ko saw mi yaa mébétal ngéejul bëggal li ngay bëgg ma defal la ko mu ne ko yow sama boroom man de li ma bëgg mooy may gis nit ñi di gis mbindeef fii te kenn duma gis yàlla ne ko saw mi yaa am nga loolu mu ko ñaareel bi bëgg naa di dem ba ci biir suuf di fa làqatu yàlla ne ko jëlal am nga loolu mu ne ko ñetteel bi bëgg naa su ma demee ba màggatit su may dee ma delluwaat di jeune di waxambaane yàlla ne ko am nga loolu yooyu yëpp yàlla defal ko saw sawmiya moo tax jinne yi avant ñuy génn àddina dañuy delluwaat nekk chab nekk jeune doo ko génn àddina bu ñu génnee àddina it dañuy disparaître dañuy disparaître dañuy dem ci biir suuf mën nañoo laqatu ba ci juróom-ñaareel bi suuf loolu yàlla moom moo leen ko defal kon bu ñu dellusee ba tey ci ad dumayri cheikh dumayri ci xayawaanaatul xayawaat euh, xayawaanaat xayaatul xayawaanaat al kubra benn téere la moom def ci wax ne jinne yëpp zuriyatu iblis lañ <laughs> moom loolu la wax dafa ne jinne yëpp njabootu iblis lañ am ku ne ko déedéet jinne yi jins lañ ay xeet lañ comme ni ni ni ni yi nekkee ay xeet comme niñ ko waxee ci alquran kunna taraiqa qidadan ay xeet lañ waaye iblis kenn la ci ñoom léegi nag cheytaane bi mooy képp koo xamante ne toppul yàlla mutamarrit la toppul yàlla te cheytaane noonu muy nekkee ci nit nekkee ko ci jinne noonu lay nekkee tamit ci ay fas ak i mbaam noonu la koy amee euh, kon arab yi ñooy wax baatu cheytaane mbokk mi ñu évité woon nag muy wax ci seytaane euh, bokkut ak jinne di ci wax lu bëree bëri xam nga nit moom weddi daa yomb waaye bu fekkoon boo weddee ba pare da nga fay teg dara day day day neexal layal waaye weddi noonu rek loolu du sharia beneen bi mooy gis jinne mën naa nekk mën nañuy gis jinne waaye du ci melokaan bi ko yàlla bindee su jinne soppikoo ñëw ci mbindeef comme doom aadama wala mu ñëw ci béy wala mu ñëw ci xaj wala mu ñëw ci muus ah da koy gis naka noonu mën nañoo wax ak moom jinne mën nañoo wax ak moom te dañuy wax ak moom euh, ñetteel bi mooy bëtu jinne nekkul sobe maanaam képp kuy jëflanteek jinne rek wala muy wax ak jinne rek ci sobe lay dund déedéet loolu amul loolu amul nii xibaar yi di tasaaroo tasaaroowee ci kaw suuf noonu la ko jinne yi di déggee noonu la ko jinne yi di déggee comme ni nga koy déggee yow nit ñoom noonu lañ koy dégg kon ñoom dañoo am ay dégg dañuy wax ak nit ñi loolu lu mën a nekk la lu am la lu jul weddi la ñu ñëw ci nag ndax jinne mën naa sëy ak doomu aadama bu mënee nekk ndax sëy boobu dafay dagal aljawaabu la tontu bi mooy déedéet ndax sëy dafay am ay charte yu muy wéree sëy ci lislaam dafa am sart yu muy wéree ah waxal sart yi alwali muy sëy dafay am kilifa bi ngay sëy jinne ji ñan ñoo ko seede ñan ñooy kilifa yi ñan ñoo la ko may ñaareel bi al ishaar mooy sëy dañ koy feeñal mu feeñ lool ah da ngay dégg rek diw dafa am jabaru jinne néeg bee muy tëj jabaru jinneem jaafa nekk loolu rek ngay dégg kon takk bi dafa war a feeñ ñetteel bi almahr maanaa can dañ koy wane dañ koy joxe lan mooy canu nit ak jinne lan mooy can bi ñeenteel bi ashuhud mooy sede yi sëy dafay wéree ci sart yi te diggante nit ak jinne nag yi def cee mënta am yii mënu cee am kon nag bu fekkee loolu am na waaw léegi ndax ñoom ñaar dañuy gisante bu ñu gisantee ndax dinañu mën a def euh, li ñuy wax jima ndax dina mën a nekk yàlla day lim ñu wax mooy innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min xaysu laa tarawnahum dañ leen di gis foo xam ne yéen du ngeen leen gis ñaareel bi ci li mu mën a def diggante góor nit ak jinne di sëy li mu mën a def mooy dafay ubbi buntu mbon bis bu ñu ko yoonalee wala ñu gis ne lu mën a nekk la jinne ju góor mën naa takk nit ku jigéen kon dafay tasaare mbon di nga gis euh, ndaw soo xam ne taxawaalu moo koy neex mu ne man duma am jëkkër ndax dama am jëkkëru jinne ku ci mën dara ku fekkee fañ ko takkee kon loolu dafay tasaare mbon ci kaw suuf ñetteel bi mooy jigéen jooju tamit mën naa dem ba fawee boppam ba ëmb bu ñëwee kenn du ko wax dara ndax danaan damaa am jëkkëru jinne ku ci mën dara loolu moo tax la fa wala yajuuz bu duñ ko doon defit amul njëriñ te du dagan kon yooyu moom mooy tontu bi ci ndax jinné ak nit mën nañoo sëy ñu dugg ci asixr njabar lan mooy sixr bu ñu ko waxee mooy génne wala jëlee mbir ci dëgg-dëggam yóbbu ko ci lu dul loolu loolu moom mooy sixr sixr nag mën naa nekk ay baat yu ñuy wax waa ji yore ab euh, xàncam wala mu yor wëñu faalaayam di wax di ci tufli loolu la ñuy tuddee sixr loolu moom mooy njabar loolu nag yu assir ah dafay am njeexantal ci doomu aadama day tabbi léeg-léeg mu jàpp léegi ñu fas nit ba bopp bi di metti lool yu assir naka noonu moom sixr dafay jàpp di jàpp tamit xol léegi ñu jàpp waa joo xamante ne xol bi dem rek lay gis naka noonu dafay jàpp yaram diisal ko lool li ma la bëgg a wax rek nga xam ne sihr am na tasir bu muy def te sihr lu am la naka noonu sihr dinay teqale ñaar ñu doon ànd moo xam baay la ak doom yaay la ak doom mag la ak rak euh, soxna la ak borom këram yëpp sihr mën naa ñëw teqale leen ci ay baat yoo xam ne rek dañ koy wax di fas benn mbir loolu moom mooy sixr dinay def taasir mooy dinay am njeexantal léeg-léeg yàlla ñu ko wax fa yataallamuuna minhuma ma yufarriquuna bihi bayna al mar'i wa zawji ña ngay jàng fa yataallamuuna ña ngay jàng minhuma maa loo xam ne yufarriquuna bihi ña nga cay teqale bayna al mar'i diggante nit wa zawji ak jëkkëram kon luy am la su amul woon yàlla du ko wax kon sihr dinay am yàlla waxaat ko wa qaal wa min charri nafasat fil uqad yow muslul ci ayu ki nga xamante ne mooy tufli nafasat mooy ñuy tufli fil uqadi ci pas ya jël wëñ di ko fas bu xonq ak bu weex ak bu ñuul di fas wala mu jël xàncam di fas wala mu jël sagaru sën di fas loolu la ñuy tuddee asihr loolu yu assir dafay am njeexantal léeg-léeg ci doomu aadama léegi nag bu dalee nit am na ku laajoon ndax tàndarma dafa am lu muy def ci wàllu njabar ndax def ci mën dara ma ne ko ah kañ waxu yonent bi la waxu yonent bi la nee na képp koo xamante ne xëy nga suba nga lekk juróom-ñaari tàndarma mu ne bés boobu laa yadurruhu summun wala sexrun mu ne ki xëy lekk juróom-ñaari tàndarma mu ne bés boobu mu ko lekkee day tooke du mën ci moom dara waaye sixr du mën ci moom dara rawahul buxaari kon tàndarma <laughs> baax na lool sax ki ko doon laaj loolu lu am la tàndarma mën na dara ci njabar te yenent bi nee ku ko lekkit keroog défense lay nekk sa digganteeg njabar défense lay nekk sa digganteek tooko tooke am na ay aya yoo xam ne ci alquran boo ko dee jàng mën naa fecc njabar ci yow aha kañ mën naa fecc njabar ci yow dinaa la ko wax ci biir darse bi xam ngeen aishata radiyallahu anha bés yonent bi dafay dugg ci néegam fekk benn jigéen aisha mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy faj waxoon naa la aisha da daan faj Aysa di ko faj yonent bi daal di dugg si ne ko aali jiha bi kitaabillah Aïcha mm, faj ko ci téere yàlla bi mocc ko ci téere yàlla bi la muy tekki kon alquran shifa dañ ciy faju naka noonu am na cislay am na wéeruwaay ci di ko jàngal nit ci di ko ci faj maanaam di ko jàngal nit ci ay noppam mu di ko dégg di ko ruqiya lu mën a nekk la am na cislaay am na ku ñuy wax abdurrahman ibn abi layla an abihi qaala kuntu jalisan inda annabi sallallahu alayhi wa sallam iz jaahu fa qaala inna li axan wajaan benn waay boo xam ne ab kaw-kaw la dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge ci àll ba ne ko yow mi yàlla yónni man kat dama am mbokk moo xam ne dafa am metit fu mu toll rek day jàmbat métit euh, def nañ ci lu ne nag waaye amuñu ci pexe yéen bi ne ko lan mooy metit bi maanaam lan la yëg waa ji ne ko jinne da koo laal jinne da laal yéen bi ne ko demal nga ànd ak moom nga andil ma ko waa ji dem ànd ak moom andi waa ji nga xam ne jinne da koo laal bi mu ñëwee yenent bi teg ko ci wetam sallallahu alayhi wa sallam jël loxoom bu tedd bi teg ci boppam cosaanal mocc ci sunna jël loxoom yu tedd yi teg ci boppam lan la def daal di muslu ci cheytaani audu billahi min acheytaan rajim déglu li yenent bi jàng de yow mi nga xamante ne yaay ruqiya yow mi bëgg di ñaanal nit ci alquran di moccu nit ci alquran lii la yonent bi jàng alfatiha ginnaaw bi mu ne audu billahi min alcheytaan rajim jàng fatiha jàng arba ayat min awali suratu baqara moom la jàng jàng ayatayni min wasatiha dem ba ci digg ba ci baqara mu jàng ca ay aaya aaya boobu mooy wa ilahukum ilahum wahid mu jàng ko jàng ayatul kursi moom alayhi salaatu wasalaam mu jàngaat ñetti aaya ci mujj ga waaye mu jàngaat ci awwalu ali imran ci suura ba ca kaw alif miim mu jàngaat foofu ñëwaat ba ci biir ali imran mu jëlaat sahida allah annahu la ilaha illa hu mu demaat ci araaf surtout araaf mu jàng inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawat wal ard mu demaat ci muminuun mu jàng wa man yad'u maa allahi ilahan axara la burhana lahu bi mu demaat suratul jinn mu jàng fa fa taala allahu almaliku alhaq wa annahu taala jaddu rabbina wa annahu taala jaddu rabbina mattaxada saahibatan wala walada mu jàngaat asra ayat min awali safat mu jàngaat salaasa min aya min axiri alxasr law anzalna ba ci huwa allahu alladi ba ba mu jeex mu jàngaat qul huwa allahu ahad mu jàngaat muawidatayn qul audu rabbil falaq qul audu rabbin naas waa ji daal di jóg yëgatul dara ci yaram bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ko yenent bi defee bi nga xamante ni kaw-kaw bi xëyaat na ñëw yenent bi ne ko ana sama waaja mu ne ko alhamdulillah dara jotul ko eh, rawahu ibnu majah kon mocca ngi nii lii cosaan yonente alayhi salatu wasalam def na ko aaya yii ma la eh, waxal it moom la yeneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngoon kon nag am na yeneen mocc yoo xam ne ñu ngi koy gis ci suñu réew muy mocc yoo xamante ni ah du lu ñu yoonal de ndax yow miy wax baat yi xamuloo baat yi buñ la ko firiloo xamoo ko te yonent bi bis ba mu toogee ne yéen moccukat yi andil leen ma li ngeen di mocce kenn ku ci nekk na wax li muy moccee lu waay xamul nag bu mu ko wax mu ne mocc dagan na feek sirk nekku ci kon fexeel ba yow moomu nga xamante ne bëgg ngaa seppi sirk ci sa mocc xamal baat yi ngay wax kon su fekkee baat yooyu ngay wax xamuloo ko wóorul nga di ko jëfandikoo ndax mën ngay dimbalikoo jinne yi yow balaa ngay génn àddina boo moytul di nga sonn lool kon lépp looy moccee na fekk baat la yoo xamante ne xam nga ko bu nekkee alquran nag gënati na kon kenn du sukkandiku ci jinne yi ngir di mocc nit kon nag ñu taxawandi foofu comme niñ ko baaxoo di def ñëw tuuti tey ci euh, feebar bi ñuy joxe garabam tey ñu ñëw ci maradu sukkur muy feebaru jabet euh, li ci gën ci ki nga xamante ne dal na ko na dem ci garabu guy garabu guy mu xas ko bu ñëwee xas yi na ko weer na koy xooj ci ndox di ko naan kopp suba kopp midi koppu ngoon ki am jabeet nay def li incha allah suukaram dina dina wàcc bu baax a baax ñaareel bi ci garabu ki amee jabet buñ ko waxee xam naa dina jàpp ñu bari mooy ngooñ ngooñ ngooñu gerte bi nii boo jëlee ngooñ mi raxas ba mu set nga baxal ko ci sa marmet def kopp suba koppu midi koppu ngoon dina delloowaat sa suukar ba mu normal ala kulli xaal ñaar yi la ñuy jox ci ñi nga xamante ne jabet laal na leen muy feebaru suukar am na nag kuy wax nebedaay waaw nebedaay baax na lool ci jabet waaye du koo xamante ne jabetam gañe na ko ba pare nebedaay baax na lool surtout bu fekkee yaa ngi koy booleeg meew bu tàng di ko naan dina génne fanweeri feebar ak ñett ci sa yaram nebedaay bu fekkee yaa ngi koy naan ak meew bu tàng bu amul suukar dina génne fanweer ak ñett feebar ci sa yaram waaye nag ki nga xamante ne jabetam gañe nako ba pare nebedaay du mën ci moom lu bëri waaye yii ñu joxe bu fekkee nit ki topp na ko fekk mu am amee feebaru suukar incha allah suukaram dina dem ba taux bi dina wàcc bu baax a baax ba mu mën di jëfandikoo yu ñu ko tere woon yu bëree bari mu mën di ko lekkaat yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp def ko ci yéen lu ci jub yal na yàlla defal ñu ko jub ak jubo lu ci dëng ñu ngi leen koy jéggalu di ko jéggalu yàlla wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً